waaw gis nga photo bi nga xamante ne moom la ñuy wane wax dëgg fa yàlla ñun dañoo dolli aal ndax aal ji mooy ci jal bu la neexee nga jël jal bi jal ne dañoo taal ba mu tàkk ñuy jekki ñu fekk ci photo bii li gën a yéeme ci photo bi moom mooy photo bi dañoo xool nataal boo xamante ne maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ci def muy duy ndaa gi def ci maam Cheikh Ibrahima Fall mu gor ba yor mat. Euh, ak garab gis ci maam Cheikh Ibrahima Fall mu yor kuur di dëbb fi lañ ko fekk boo xoolee cat yee ñoo jot a tàkk li des tàkkul ci biir jal biñ doon taal ci lañ ko gis maanaam ñu ñu ko defoon mu alxames ba lee passé ci lañ ko gis ñu daaj ko fii ne lii de dolli lañu firnde ne dañoo war a liggéey. lii kenn waxuma ko man maa ko maa taal sébu bi muy tàkk di tàkk ba sébu bi tàkk ba jeex photo bi nekk si deful dara maa ko témoin lii na gën na tax ma xaru fii dana set wecc wecc wecc wecc doole Seye Ibra doole Mouhamadul Fadel. li ñu koy waxee nii gars yi yëpp nee nañ xam nañ ne fii liggéey bi ñu fiy liggéey te mu nekk àll boo xamante ne wax dëgg fa yàlla dañ fi tur mbalit te kenn mënul ñëw di ko garder ñu ngi demander Eh, ñi nga xamante ne ñooy njiit yi nga xamante ne war nañoo mën a def eh, ñu fexeel ñu foo xamante ne dañ fay tuur mbalit ndax am na fi nga xam ne jël nañ ko pour tuur fa mbalit waaye nag nit ñi buñ koy tuur doo ko fekkee yenn saay doo ci mën a xuloo doo ci mën a xeex ñu yaakaar ne buñ ko defaree nii ba mu rafet buñ ci maire bi dikk mënee dimbale ñu dagg ko ndax fépp ñu ngi koy dagg ay kër te dina tax mbalit mi kenn dootu ko tuurati comme li may wax rek buñ ko defaree ba mu baax daal kenn dootu fi tuurati mbalit ndax bu fekkonte ne dagg nañ ko ay kërit kenn du fa tuurati mbalit ndax kenn du bëgguñu ñu tuur sa kër mbalit wasalaam.